yonent bu ñëw am na lu ko yàlla digal waaye yow mi damay yeesal ji koy muy rafet koo koy mu innama bu istu li utamimma makarimal axlaaq yonent bi ndax bu ma leen asalna alal munna barina barina mina sagwa barina génn nañu mina sagwa ca njàqare daana daana muhammadun muhammadun santaakoon ahmadun moom la mooy sant kii sant kii yàlla boromam wëlbati sant ko kooku moom la yàlla tan boo kon boo koy wàcc nga anta nurullahi fajran hmm. xoolal. Mhm. ñu dellu tuuti ci li Lamartine waxoon Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. man texte boobu daf ma intéressé dama ko gis lépp di alquran bu ñu dëpp. mu ni jamais homme nee na gisul benn nit boo xam ne bi dugg na ci biir àddina à moins. de temps régler fi li régler au nom de l'unicité de Dieu law ya la yàlla ne un Seydina Mohamed watch nga l'islam wërale ko Adina. il a rallié à l'islam la Perse le Khorasan la Tranxian l'Inde occidentale la Syrie l'Égypte l'Éthiopie, toute l'Afrique septentrionale, une partie, une grande partie des îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. lu Amérique Amérique L'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492 alors. xol li ko yàlla ni ko al yawma akmaltu lakum diinakum yonent bu ne yónni naa ko mu échec ginnaaw yow al yawma tey akmaltu lakum diinakum matali nga diine lislaam waroon nga ko àddina wërngal képp mu gestu nag ni bëlli ko an nii gaa yi fii laa war a yem ku jot na ma jottali ndax lan rubba mu balligin aw amin saami jombul que des Grecs... en 2021 pour pas que fait que parce que il aura eu l'occasion d'avoir été lettré et de pouvoir écrire un livre de 400 ou 500 pages sur le, prophète alors que l'arabe euh, compagnon du prophète qui a vécu avec le prophète ba Mamadi, ma ma wax wala ki nga xam ne dafa dund ak Seydouna Mohamed. xëy na ummi yu la woon. il était illettré. il a beau faire guerroyer xeex ak sabre def lu ne. waaye nag mu ballixin ka nga xam ni quinze siècles après dégg na gis na Seydouna Mohamed. gis histoire am daal di koy bind daal di koy dispatché à travers la télé à travers les médias. il a beaucoup plus de mérite que.

Modou Mbaye Garmi yéen ñi lii xamuleen li ngeen def nii wallaahi wallaahi parce que lii Sénégal da koo manqué mm-hmm. y a yoo xam ne fi mu ne euh, am na yoo xam ne ñi amuñu lu ñu xëdd mm-hmm. mais fàtte nañ ko waaw am na ñoo xam ne seen ndogu du ceeb bu wow la woon ak benn yaboy mm-hmm. mais fàtte nañ ko wallaahi ndax lii ñu dégg nii fi mu ne parce que laam na péripa yaram mooy dee

daf ñëw dénk en tant que jëmay xar waaw jëmay xar yàlla daf ñëw dénk jëm yi uh-huh. ak ruu yi kër gi nag yaatu na bu la neexee tooge fii bu la neexee tooge ci wetu oustaz wala <laughs> voilà <laughs> dégg nga alors macha allah kii yàlla uh-huh. yàlla yàlla yàlla kenn la yàlla rek yàlla dafa boole ñaari élément yu bokkul mm-hmm. l'âme est lumière elle est spirituelle ruu ruu ruu

Et ceux qui viendront après toi, ils mourront. ku ku ci gis sa jabar daw sa jabar daw la say doom daw boo gisee sa baay daw sa baay bu la gisee daw waaw al firaar al firaar al firaar ñu ni dawante bi mu la ñu ne bañ àq yaxaafu minhu lisaani wa muxlati wa janaani yaxaafu minhu lisaani yaxaafu minhu lisaani sama làmmiñ ñemoo ko tudd wa muxlati sama xol wa janaani sa xel dara ñemoo tudd yow ma xiyamata wa masmaci wa sanaani sama nopp sax bëgg koo dégg ndax lan sama nopp bëgg koo dégg ndax la la fa nar a xew te dara la ma cay dikkal dara tegu ko kenn tegu ma ko du sama bakkan bi ma xaar xaar xaar dama bëgg mu leer maa ngi taxaw nii di xalaat yowmal qiyaamati lu ma fa fekk man a maa xool li ma yàlla tere yépp ma ne ci te lim xool li ma santaane yépp ma daw ko mbaa ma cof ko mais bis boobu lu fa dal ma ne yàlla nee na wa ma ana bi dilaamin li abidi te ne woon na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avertir leen inna adabi inni gafurun rahim ku bari yéen ma dana waaye waaye inna adabi la adabun shadid waaye sama mbugal tar na yawmun azimun atani bihi kitab قال شيخنا نالا بس بوبو بس بوريلا بقراو للمومون قراتي قرابيتم أقريم تيربو لير بيدي القرآن وانا وساني عن ما لفات نفوس مو ماي تري دي ما تري دي ما جاج والإسلام لينغا خمني داي دا باكن توك مصيبة فيكوتي يا من خيامة دنيا من ولا يرى في نومور نالا يوم القيامة نتك وخل بي دي دي مول دم نالا يوم القيامة نتك يوم القيامة قيامة يوم ولا يرى به نوم يوم القيامة واو واو كاي من بس يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم يوم القيامة يوم ولا يرى به نوم بس لا بو بيدو بي دو دجنت نختي تاغي بي دابل ولا هم عن ما لا فات نفوس amoo temps am donc ngay amee temps am yow yow gis taxawoo ci kaw suuf jant baa ngi la tiim malaaka yaa ngi la teet yaa ngi yore sa sa sa sa say problème li nii nii say jëf yëpp yaa ngi koy yore nii bi itabun wala mun ñoo ngay enquête ñoo ngay audité ñoo nga nga gàdd sa lépp tee waaw حنين حنين خار خار دغا فوق ني دافا ام كوي تاخو لي ديت يا ايديت وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خار خار خار مني يلا وكل شيء كل شيء بحول درا ما شاء كل بودك جرب من الفاظ العموم بارتيكول دي جينيراليزاسيون لا لولا دينا كو فرام فاتي دين نيغا فران كلا يوني نيغا تيغال ستانك يالا نين لا كو فرام فاتي لو دانغا توغي الله مومي نغا سوك مولا لو سانغا سوك الله بار بن بار بن اه 50000 50000 على اسمي إن يوما عند الله نانا باسمي نانا باسمي نانا خمسين ألف سنة لا أنا باب أنا باب أنا جلوم فك جنر يا الله باي يوك سنو باب يا سأوكا أشارش يا سأوكا دفنسر واو واو باي كتير نانا دل دل دل لبرزانت يا الله بعك خم نكينا وجاءت كل نفس ما عسى يكون وشهيد كتير نبأ ولا كدينا لا أمر أمالات سكتنا يوتاهو waaw yàlla ne la tey wa kullu shay'in lu ne faram dinaa ko faram fàcce tafsilan wa kullu insanin déggal bàyyiwul kenn kullu boobu moo garaaw kullu insanin nit ku ne bàyyi na kenn déedéet yàlla kenn yilifu ko yàlla kenn moomu ko kuy dee mbaa ngay jur doom mbaa ngay lekk di naan mbaa ngay nelaw ko yow doo yàlla توحيد بمولاي وخون ساق لنسيتي دي جيب هو الكريم والرحيم والأبار كوكو كو موم رك لا موم موم موم موم موي لا نوبل يالا مو باخ والرحيم وبرير مدي والأبار مو رك هو لطيف وسما بو نين بوغي ني بروفيتو تي دا نين كوي بن بن والكريم والرحيم والكريم موم موي باخ ولا بات مو في سخ دك moo jege ku ne moo bari ñëwante moom xam nga lu tax mooy samat attends attends xaaral xam ngeen samadu mooy lan mooy le sans couleur li tax du ñu gis yàlla il n'a pas de couleur samadun mais la les prunelles ne voient que quelque chose de color colorant lu amul couleur bët mënu koo gis déedéet yàlla nag dafa décoloré boppam moo tax il est invisible jàppal boobu waaye subhanahu ci moom yàlla salaatu ala imaami ruslihi xam nga lu ma koy ñaan mu julli ma rek ci sayduna muhammad ma cheikh sallallahu alayhi wa sallam muhammadun shafi'ana fil mahshari xam nga loolu ñu war a julli ci moom war koo respecté yawmal qiyaamati moom rek la yàlla respecté moom la nangu intercession wa alihi wa sahbihi wa sallam

E ku ko sopp yonent bi sa loxo ca kaw yaa ilaha doo gën a doo soogu doo yàq dalinu ci aljana kulla woo jar naa neex doo wokk doo kenn du la aar doo dee doo di kër kenn amul lu ko jar aljana bul la woo waay xayral dariya mudrikan ko mango papaya yarni xasar aljana kullo aywa xayrul duniya dirikan ya dalli no ay ci aljana kullo ayla ayla la xayrul duniya dirikan ya bay cheikh aljana ne loo sopp loo xem wop loo foytu wax ngay شريكا يا تلين تلين تخل تخل تخل تخل da ngay dellu si dafa ne àjjana neex àjjana waaw ca yemee rek ñu fekk ñun àjjana rek am na lu gën a neex àjjana foofu maa a neex moom dafa lim waaye la nekk ci àjjanaa ëpp loolu li mu xam fi rek wa yaxluqu maa laa taalamuuna yàlla naa na bind naa lu ngeen xamul te la mag ñu koy réservé bokk ñu te la mu réservé rek li nga xam ni diggante mag àjjana xam nu mel mu ngi mel ni benn hôtel 18 étoiles 18 étoiles ak këru néeg néegu ñoxu pël ba ca àll ba muy lan yàlla mu ree ko ñu gis ko xool nii xool yàlla nii bu su yàlla nee nii mu ko ñu gis ko dañuy mandi mandite goo xam dootul rees abadan waaw attention mandite àjjana wuti nag bi li fii doo tërëf comme ni ngay tër di daanoo def ne de àjjana mandite da ngay laxal rek ah, ah, waaw am ci plaisir boo xam ne bi nag waaw da ngay foofu defe naa jar na tëj alaaj euh, euh, Oustaz. ba ba ba ba volume 2 bi. bàyyi Cheikh dellu si waat. <laughs> foofu rek lañ ko mën a yemale. <laughs> ndax nag xam nga lii mu euh, def tey ci ubbite gi mënul woon ñàkk. et que ñu ngi non seulement ñu ngi koy xaaraat ci beneen parti bi. ndax nag ku sakkan kii du ñu ko defal benn quartier général rek. waaye xam naa ni bàyyi Cheikh itam comme sunu baaya. njortu naa dellu seem ci bis bi ñuy quartier général euh, bi ñu nar a jagleel Cheikh na Cheikh Sadbou incha allah loolu moom ñu ngi la ci ñu la ciy xaar. xam nga lu tax ma uh-huh. ma da ngeen maa tooñ. <laughs> déglu neen de. Euh. daaw da ngeen tooñ. mais daaw nag boroom xam-xam moo ñëw. déglu ma. ku la gën a aay. d'accord naa. ku la gën a naa. ku la ëpp xam-xam. d'accord naa <laughs> waaye xam nga li jaaxal. mooy dangeen ko tànc. ne ko Sénégal Cheikh na Cheikh Saad Bou Sénégal. Euh? duggam ci Sénégal mais xam nga kooku kan la. waaw lu tax ma ni moo la ëpp xam-xam. parce que ci man lay tibbee. kooku kuy bàyyam. ba Cheikh Yérim Ndoumban Seck mi mooy bàyyam. Ah, ok. yàlla <laughs> na ma yàlla na ma raw. moo ñëw waaw yàlla ma raw. je nag mais allah papa. Mm-hmm. ren di nga di nga ko won nag loo ko mënee incha allah. allah dinaa ko karwaase. voilà won ko loo ko ah, mënee. am na benn télé am na benn télé bu ñu wone ay comédien waaw.